mbokk yi nag tey dañoo bëgg ñëw wax ci kàddu yi président Macky Sall yëkkati wax ci wàllum valeur ak wàllum réseaux sociaux yi ci lañ bëgg a wax sunu xalaat ndax président Macky Sall li muy wax ci réseaux sociaux yi bari na trop ndax président la boo xam ne euh, président bu nekk ci réseaux sociaux yi la ndax man gosaas laa njëkk xamee ne. si la njëkk amee firnde kane président Macky Sall euh, ni ñuy nekkee ci internet bi moom noonu lay nekkee ci internet bi ci élection présidentielle yi passé euh, Gossas ci terrain Gossas bi ci benn meeting bu fa Benno Bokk Yaakaar doon def keroog bi fa président Macky Sall yi ñëw euh, meeting boobu dama demoon foofu pour couvrir meetingu Benno Bokk Yaakaar boobu waaye président Macky Sall boobu ma ngi yor benn tablette ma dem ba jege ko nii ma gis mu nekk ci euh, ci réseaux sociaux yi moom tim euh, di xool am euh, si biir meeting bi bon li ma bëgg a wax foofu mooy président Macky Sall lu bari daf koy gis ci réseaux sociaux yi mu koy naqari te mënu koo saafara ndax kilifa bu gisee lu ko naqari bu ko mënta saafara xol bi dafay faral di tànk loolu moo tax président Macky Sall di wax lu baree baree bari ci réseaux sociaux yi ndax amaana gérer lu la naqari ci télévision gérer lu la naqari ci journaliste gérer lu la naqari ci ki nekk ci rajo bi wala rajo wala télévision wala quotidien gérer loolu en tant que njiitum réew yaa xam say pexe moo gën a yomb ka gérer réseaux sociaux yi gérer réseaux sociaux yi dafa jafe kilifa nag su bëggee lijjanti mbir su ko mënta lijjanti rek euh, dafay am lu ko naqari loolu mooy wane loolu mooy firndeel réaction yi président Macky Sall di am ci réseaux sociaux yi moo ne moo ne day ñoom gouvernement bi euh, presque leader bu nekk am na ñu lay défendre ci réseaux sociaux yi moom même moom président Macky Sall 2019 euh, man dem naa ci benn hôtel benn salle d'attente benn hôtel côté Mamel bi ma toogee ci salle d'attente bi Euh, ma gis ñu bari ay xale yu góor yu bari yor ay portable yéeg euh, yéeg ci kaw hôtel bi après ki ma doon wax ki ma doon xaar bi mu dikkee bi ma ko expliqué na ko man dama gis ay xale yu góor yu baree bare yéeg fii euh, ak benn kilifa bu nit ñi xam aussi ci gouvernement bi instant bi sax presque gën nañ ko gis ndax doon gérer lu jëm ci wàllum communication gouvernement bi moom tim ma gis ko ma yéeg ci hôtel bi ma laaj kooku mu ne ma ay nit lañu ñu ngir Benno Bokk Yaakaar pour pour vous diir que ne Benno Bokk Yaakaar ni yeneen parti yi jëlee ay nit pour ñu leen di gérer seen communication tey noonu la ko Benno Bokk Yaakaar amee waaye li ma leen wax sànq défendre président Macky Sall moom moo jafe ndax fii ministre yi ngeen fii gis yépp presque seen page Facebook yi dañ koy dénk ay journaliste wala dénk ko ay nit te neewaane si ñoom ñu si amul ay nit sax ñu leen di défendre te tey soo xoolee sax ministre yi Macky yi ñoom ñoo gën a mën a ñoo gën a am sax wéeruwaay ka président Macky ndax am na ministre yoo xam ne soo leen laalee da ngay gis nitam yépp wàcc ci réseaux sociaux yi di défendre di tontu. waaye soo laalee président Macky Sall presque ñu mel noonu du ñu génn maanaam gouvernement bi kenn ku nekk dafa gérer bopp dafa lijjanti song yi ñu koy song waaye lijjantewul song yi ñu songu ñoom seen kilifa waaye li am ba des mooy lijjanti euh, réseaux sociaux yi dafa jafe te man gisuma ne euh, ñi nekk ci biir réew mi ñoo ngi wax ci réseaux sociaux yi lu ñu wër te wax ndax ku fi wur ku fi wax loo waxul loo wax président bi dañ lay jël si ku te ñii ngeen gis ni si réseaux sociaux yi nekk ci réseaux sociaux yi euh, ñi nekk si réew mi xam nañ ku ne ku ubbi ab page Facebook wala chaîne YouTube numéro téléphone bi nga koy ubbee wala buñ la bëggee xam fi nga nekk police mën na koo xam gendarmerie mën na koo xam te ñii ngeen dégg ñëpp ñuy wax ay mafia kàcc kàcc fii lañ nekk ñu si ëpp fii lañ nekk ci réew mi kon ñooñu bu dee dañoo wax lu ñu wër te wax yoon mën naa dal seen kaw. Euh, te jàpp naa ne euh, gisaguma fi ñu fi wax loo xam ne euh, lu ñu war te wax la dadi rek dadi rek dañu bëgg xañ nit ñi seen liberté liberté d'expression wax sa xalaat wax mbir yi nan ko ko xalaate waaye président Macky Sall su amoon solution ci ñi koy défendre lii mu réaction yii mu am du ko am ndax ñoom dañuy am ay nit ni ko yeneen coalition yeneen parti politique yi di amee ndax am na ñu nekk ci réseaux sociaux yi di défendre Ousmane sonk noonu la ko Macky Sall amee su doon wax nit ñi ba yey leen si Macky Sall lu yomb la président Macky Sall réaction yii muy am du ko am loolu euh, benn ponk la beneen bi mooy saaga yi ñuy wax ci réseaux sociaux yi ñu bari dañ ko bëgg a tuumaal Ousmane Sonko même am na leader yu nekk ci opposition bi boo leen déggee dañ la bëgg wax na la violence bi ak saaga yi ci réseaux sociaux yi ci Ousmane sonk la commencé c'est pas vrai loolu euh, li tax du dëgg mooy usman sonk bi ko nit ñi xamee ci wàllum politique yàggul euh, Souleymane Jules Diop bi Macky Sall def ministre bi muy def euh, dégg-dëgg nekk bitim réew di ko def dégg-dëgg di wax sunu kilifa di ni musiba ak mbelengaan di leen wax loo xamante ne maara day taal yi boobu Ousmane Sonko kenn xamu ko ci wàllum politique ñu néew a ko xam te Souleymane Jules Diop moomu tey moom la président Macky Sall jëlee bitim réew indi ko ci réew mi mais def ko ministre ci kanamu Sénégalais yépp mais mënuñu ci dara ci kanamu kilifa diine yépp mais mënuñu ci dara mais yoonu murit communauté murit bu ñu meree Macky Sall ñu si bëri ba Macky Sall munta gañee gox yi nga xam ne murit a fa dëkk mais lu mel nii bokk na ci ndax Souleymane Jules lu mu waxul yoonu murid daf ko fàtte lu mu yëkkul suñu kilifa diine yi ak ay nitu Macky Sall ñoo xamante ni ñu ko jege ñoo xamante ni lu ne la ñuy wax communauté murid mais loolu bokk na ci nit ñi dañ ko dut fàtte nit ñi dañ koy fàtte mais Macky Sall li tax muy li tax murid yi mere loolu daf ci bokk est-ce que du Souleymane Jules Diop moom mu def ministre tey moom moo encouragé ndaw ñu baree bari ñu nekk bitim réew di wax mais pourtant Souleymane Jules Diop bi muy wax eh, loo xamante ni tey man ñëw moo see jaaraat te boobu Ousmane Sonko kenn da koo xam fii si réew mi wala ñi ko xam da nga leen di wàññi ko xam da leen di wàññi euh, beneen bi mooy wàllu violence mais Daaru si jàppante am na fa si diggante ñaari leader ba nit ñàkk bakkanam ak feneen ak feneen ci réew mi boobu Ousmane Sonko kenn dégg ko ci wàllum politique avant Ousmane Sonko ci wàllum politique wala sax avant muy ba avant sax muy euh, jàng bay toll fii mu toll bi dem ay université dégg ngeen violence politique bu am ba ay nit ñàkk seen bakkan ba tàyyi fii ci réew mi booba nag réseaux sociaux amut waaye bi réseaux sociaux amee ki ci gënoon fës doon def dégg-dëgg Souleymane Jules Diop bi Macky Sall falo daf ko def ministre euh, beneen bi euh, Cissé Lo ma koy nuyuwaale mais Cissé président Macky Sall àndal ci wàllum politique président Macky Cissé lu ne dégg nañ ko mu wax ko suñu kilifa diine yi mënatuma ci sori euh, président Macky Sall doonu ko woon def élection législative ci liste départementale liste nationale la ko doon def ngir mu nekk député te pourtant jamono jooju noonu ñuy wax Cissé Lo kàddu yi mu doon yëkkati euh, xam ne kilifa diine yu bari ci yoon mu neexuwuñ woon ak ñoom mais boobu Ousmane Sonko ñii mu àndal mais boobu nekkuñu woon ci wàllum politique boobu ay Pastef yi kenn kenn xamu kenn xamu ko woon dañ leen waxante dëgg euh, beneen bi. mooy su dee da ndax déggoon naa fi ku bokk ci gouvernement bi àndoona Macky Sall yi il faut ñoom ñu créer ay débat ay euh, ay débatteur maanaam ñoo xam ne ñoo leen di débaal ci rajo yi ak ci télévision yi waa léegi su dee tey par exemple tey réew mi nii mu tëddee réewum guerre réewum corruption réewum parparloo réew mi yaa ma neex su dee jël nga sa alal yow yaa jiite nguur xool ñoo koy jox ñu lay débatral ñuy invité say nit suba ngoon guddeeg bëccëg ñi nga xam ne kenn invité wu leen ndax yoruñu xaalis bu ñu gereewaat gereewaate mais yow nga yow nga ñu invité say nit ci plateau télé ak ci plateau rajo say nit di saaga mais say nit buñ saaga mais mayal ñi ñu saaga seen leader ñu commenté fayu ndax boo nekkee ci tele nga saaga leaderu jàmbur mais leaderu jàmbur boobu nga saaga Euh, ki koy jàppale amul possibilité pour jàkkaarloog yow ci plateau tele amul possibilité pour jàkkaarloog yow ci plateau rajo possibilité bi mu am mooy commentaire te tey commentaire la man ndax boo saagaa leader am euh, en tant koo xam ne yow danga bokk ci réew ñu jox la lu réew mi nga saaga moom munul xale bi munul nekk lu du commentaire fayu ndax saaga yi bu jeexoon ci plateau télé yi ak plateau rajo yi léegi tey saaga yi jeex ci réseaux sociaux yi waaye boo demee ci télé bi saaga dem ci rajo bi saaga na la leer ne dinañ la tontu fayu ci biir euh, ci réseaux sociaux yi euh, loolu moo ci am ndax mënoo ne damay dem ci télé saaga dem ci rajo saaga te kenn du ma saaga boo bañee ku la saaga ci réseaux sociaux yi da ngay bañ a saaga waate ci télé yi bañ a saaga waate ci euh, ci rajo yi ndax fii ñii nga xamante ni tey ñoo ànd ak président Macky Sall bëri na ci ñoo xam ne. dañuy dem ci télé yi di saaga di saaga Ousmane Sonko am na ñoo xam ne dem nañ si saaga ndey dem di ko si saaga baay mais boo taxawee nekk farandoo Macky Sall bëri lool ñu nekk ci télé yi ak ci internet yi ñu leen di invité ñuy saaga Ousmane Sonko mais par exemple di ko saaga mais ñi koy jàppale Ousmane Sonko ñoom tam dañuy fayu ndax ñiy jàppale Ousmane Sonko ñëpp tolloowuñu xel am na ci koo xam ne dafa jàpp ne boo saagaa Ousmane Sonko moom dafa war a fayu automatiquement dafa la war a saaga ndey looloo tax mbir mi pëccoxoo mais ñu bari bu ñu bàyyi woon saaga ci plateau télé yi plateau rajo yi léegi tey saaga jeex ci réseaux sociaux yi ndax am na ñoo xamante ni amuñu possibilité ñu invité leen ñi nga xam ne nag ñoo yor xaalis ñu leen di invité subaangoon guddeeg ba ci télévision yi télé boo dem fekk leen fa mais ñooñu yi lañ am pour dem joxe seen xaalis ñu invité leen waaye ñu nekk ci réseaux sociaux yi ñoom tim noonu lañ mën a fayoo mënuñoo fayoo neneen ndax amaana buñ mënoon a fayoo neneen buñ mënoon a dem ci plateau yi mën a toog ak a toog ak yéen Euh, pour de pour pour pour débat mais fii ñaata yoon nga fi gis nit invité fi nit mu taxaw saaga nit euh, saaga ko bam bam bam tooy bañ ko commenté euh, bañ ko commenté kii fayu penda am na benn xale bu jigéen bu ñoo xaw ma penda nan saaga na fii saaga na fi wolof yépp mujjul fen bu dee wàllum valeur bu dee wàllum valeur Jibril Ngom Jibril Ngom mi nga xam ne tey wàllum escroquerie lañ ko doon toppee daw ak listi jàmbur nga recevoir ko ci palais présidentiel lu ñëpp bokk palais de la république loolu jàpp naa ne crise des valeurs foofu la commencé Macky Sall jàpp naa ne war nañ ko jot nañu tekkil ko lan mooy valeur ndax Ousmane Ngom moomu mu recevoir tey waajur yu baree bare am nañ ci lu leen ci naqari ndax jamono ji muy recevoir Jibril Ngom moo xam ne tey bu ko sénégalais yu bari xamee. wàllum ndëngate moo tax ñu xam Jibril Ngom nañ waxante dëgg même journaliste yi Jibril Ngom buñ ko xamee ku tudd turu Jibril Ngom wala nga bind ko ci euh, ci ci ci ci Google bi lan la lay génneel moo daw ak liste yi yeewu aska ay nit wóolu ko ay nit wóolu ko koo ay nit wóolu ko nga jël Jibril Ngom présenté ko Sénégalais yi tey image su Jibril Ngom ku ko xam Macky Sall tax nga xam ko ndax Macky Sall moo ko recevoir loolu moo aggravé mbir mi. recevoir koo xam ne dafa dafa def loo xamante ni mën nañ koo tuddee escroquerie mu mel ni moom président Macky Sall daf koy encouragé recevoir ko ci palais présidentiel jamono joo xam ne tey jamono jooju euh, ñi nga xam ne tey ñooy syndicalistes yi bëggoon nañ ko leen recevoir amuñu ko transporteurs yi bëgg ko amuñu ko homme d'affaires yi bëgg ko amuñu ko baykat yi bëgg ko amuñu ko sàmmkat yi bëgg ko amuñu ko sénégalais yi yu baree baree bari bëgg ko amuñu ko ngir wax seen xalaat ci réew mi muy recevoir koo xam ne tey boo tuddee turam ñu ne la ñuy tudd wàllum escroquerie loolu jàpp naa ne wàllum valeur méngoowul euh, méngoowul ak loolu beneen bi gis nañ fi ku ñuy tuumaal boroom ñaari tur mu taxaw ouvertement ne euh, Macky Sall lay jàppale am na ci koo xam ne casquette bi mu soloon sax euh, photom yaakaar naa moo si nekk xaw ma photom Marème fay Sall euh, beneen bi kura Macky Koura Macky Macky Sall na ko ci palais bi te Koura Macky kuy ñaaw làmmiñ ci Sénégal Koura Macky ngay jàppale ñaata yoon la fi saaga Ousmane Sonko ñaata yoon la fi saaga nit tey Koura Macky moomu di saaga xam ne boo duggee ci internet bi tey sama doom bu gisee ñu recevoir Koura Macky ñu ne Koura Macky la président Macky Sall recevoir sama doom bi jàng dugg ci google bind Coura Macky jàpp ne Coura Macky moom ab étudiante la wala Coura Macky ab jàngalekat la boo xamante ni tey dafa xarañteefam tax na ñu recevoir ko pour un bon exemple sama doom bind Coura Macky gis Coura Macky di saaga loolu président Macky Sall mënu ko expliquer euh, beneen bi mooy euh, Macky Sall si boppam am na loo xam ne moom la ndax ñu bari dañ koy bàkkee na ko waxam mën naa wax génnaat ci te loolu baaxul. Euh, li nga xam ne tey moom moo am ba des mooy problème bi président mack Sall il faut mu xam ne du réseaux sociaux yi problème bi moom Macky Sall la euh, ak ñi mu àndal te te ñi mu àndal moom moo leen moom moo leen nommé kon lépp responsabilité am la mais président Macky Sall li tax mu am jafe-jafe mooy dafa am ñoo xam ne dem nañ ba amatuñu espoir ci mag amatuñu espoir ci réew mi waaw ñu bari amatuñu espoir ci réew mi ñenn ñi jàpp nañ ne réew mi dañ ko jaay tubaab yi euh, wàllum démocratie ñu gis ne euh, nësax na jaay doole gi bëri sa adversaire boo xamante ni ma ngi diiranteeg yow mbagg nga jaay ko doole te Macky Sall si boppam moo bëggul adversaire même ku mu jàpp man mën ngaa nekk adversaire am ëllëg ci biir Benno Bokk Yaakaar mu indil la ay jafe beneen bi mooy sénégalais yu bari dañu jàpp ne xaalisu réew mi awali ko si yoon te ku gën a def ay ndëngate kooku lañ gën a mën a jox ay poste de responsabilité loolu aussi baaxul euh, beneen bi biir biir Benno Bokk Yaakaar biir gouvernement bi maanaam Macky Sall ñu ko wër ñooñu lii may wax nag Euh, maanaam ñi ñi ñi ko xam te ñi te ñi nga xam ne ñooy toog di ma dégg maanaam di ko dëggal mooy waa Benno Bokk Yaakaar rawatina ñi nga xam ne tey ñooy ministre yeeg ñooñu ñooy dëggal lii may bëgg a wax maanaam mbañante gi ne seen biir sénégal yu bari xamuñu ko maanaam sénégal yi dañuy jàpp ne euh, gouvernement bi dañu dañu contre Ousmane sonk par exemple am na si leader yu contre usman Sonko mais niñ contrante ñoom seen biir moo gën a garaaw ndax am na ñoo xamante ni tey bañ nañ Abdoulaye Diouf saar genn xeetu bañ goo xam ne ko nekk président sax moo leen gënaloon tey ëllëg Abdoulaye Diouf Sarr remplacé président Macky la am na ñoo xam ne bañ nañ Aminata Touré genn xeetu bañ goo xam ne euh, Déthié Fall jiite réew mi sax moo leen gënal Aminata Touré jiite réew mi te ñoo ñëpp ci biir gouvernement bi la biir entourage Macky Sall biir Benno Bokk Yaakaar maanaam yéenante wuñ jàmm Benno Bokk Yaakaar Euh, ñoom ni ñu bañantee seen biir sax ñoom bañewuñ ko opposition bi benn bokk yaakaar nag seen leader yi dingeen leen gis ñu nekk ci télé bi di jéem a défendre président Macky Sall mais bëri na si ñoo xam ne bu ñu wéetee la ñuy wax ak la ñuy wax si télé yi bokkul maanaam ñoom ni ñu bañantee seen biir ñoom benn bokk yaakaar ni ñu bañantee seen biir maanaam dafa jéggi dayoo ak clan yi nga xam ne moo am clan yooyu noonu nag lu si bari mooy yàqal président Macky Sall ndax Macky ñi ko wër ñu néew ñoo ko ciy wax dëgg bu dee sax am na ci ndax buñ ko doon wax dëgg euh, nii mu nii réew mi demee du ñu demee ak lii xew si réew mi loolu du xew ci réew mi waaye dafay mel ni moom mooy encourager euh, wàllum wàllum ku ko dul wax dëgg wala moom moo bëgg xeetu nit benn xeetu euh, xeetu nit ñooñu waaye président Macky Sall na la leer ne Benno Bokk Yaakaar ñi la wër ñi nga jàpp ne say nit lañ bëri na si ñoo xam ne. Euh, yéene wuñ la jàmm ndax buñ la yéenewoon woon jàmm dañ la jox ay conseil yoo xam ne conseils yu baax la li ma bëgg a wax rek mooy président Macky Sall réseaux sociaux yi soo bëggee saaga yeeg euh, yii ngay wax nii da ngay bañ dangay ngay say nit danga leen di bañ a wax ñuy dem ci plateau yi di saaga nit waaye beneen bi tamit président yow yaa ngi wax mbirum valeur mais munoo expliquer yow Sénégal yi lan moo tax nga recevoir Djibril Ngom munoo expliquer Sénégal yi lan moo tax nga recevoir Coura Macky président Macky Sall sa ñaata nit ñooy dem ci télévision yi ak ci rajo yi di saagawaate nga leen di recevoir di leen di jox ay poste de responsabilité ñaata sa ñaata nit la ñuy tudd ci ay détournement nga jël leen jox leen ay ndombay tànk président Macky Sall dafa am wàllum réalisation ñaari xeetu réalisation moo am réalisation yu ñu mën a teg loxo ak yu ñu mun a teg loxo mooy lu jëm ci defar ay stade defar ay terre defar yeneen ak yeneen ay hôpitaux loolu ay réalisation la waaye réalisation yu ëpp solo mooy réaliser ci wàllum valeur mais Sénégal gis nañ ne lépp lu jëm ci wàllum jikko yeeg xeet yooyu dafa nësax te président Macky Sall est-ce que bokkoo si ñi nga xam ne ñoo ko nëxasal tey est-ce que bokkoo si ñi ko nëxasal